ma <laughs> kaa am na xam nga olof mu ne waxkat daf day wax ba sonn te du wax bosam that's exactly what happened to admin number one xam nga man maay sëriñi nandite yi loolu moom leer na and I'm the man with the five lock in addition another lock the macha lock the barahama lock the, the neurobiologue, the catalog, and the phonologue. <laughs> now the lessalog, my borando. When I was advertising one of the best medicine African could ever discover, one of them named Andalaburi, the second Doiwar, the third Regu, which was named after Bazukamoto on your blog page. <laughs> and the fourth one is Sok, Now, what is Andala Budi? Andala is a liquid medicine. 100% herbs. mu jaar si laab si ñu ceg ko ba mu baax nga xam ne soo ko naanee daf la dee sawarloo ba pare the deficiencies you face when it comes to ejaculation eh, du ko dee just ease mu may la nga mun a xam nga mel ni na Mbappé Ronaldo yooyu noonu waaye daf la dee xam nga <laughs> dafa dëgëral tim bi mu mel ni xaala Madrid <laughs> non non non Barça non Manchester dafa mel ni Manchester City noonu ngay mel you know admin number one mu call ma mu ne ma yow defal neen la advert we never receive any bad feedback about any of your medicines xanaa ñoo xam ne xam nga ñoom su nit dee try instead of ñu lift them up they prefer to criticize when people are positive they prefer to negative which I really don't give a <laughs> xam so mu ne ma mii bi den la ruus den bañ a ñëw nga attaque leen soo man ñëw naa gàmmee may ma ma test mu ne ko noonu du ma dee may dangaa jënd nga test because this is ne ba guarantee su baaxutee ma delloo la mu jënd ñetta moom ak ñaari xaritam <laughs> ma di fen nag damaa nettali xam nga du ma dee fen dama dee nettali so admin number one mu naan ko moom ak ay xaritam <laughs> bari àndalale si mboo soto dégg naa daal for naa ci weewu boy jànq bi dañ ko mujjee admit l'hôpital admit dafa téye di ko rub di ko rub di ko rub te koñ bi di xool lan moo xew soo suma garab yi ida àndala buri ida doywaar ida régu soxo soxo daf day faj prostate xam nga prostate dafa bari <laughs> because góor yi yéen ngeen seen liif yi ba sonn so soo ko dee taalal dafa am lu mu dee def si ginnaaw bugguma explain much because fii <laughs> yàlloon jàmm bantabaati but on my TikTok where I educate people what to do how to do it and I don't give a shit about Jamra me and Boindi <laughs> Borindi mane Boindi me and Borindi so it was a funny story why lu ci des mu ngi ñëw on Wednesday admin how, admin use Andalaburi, Doiwar, what was, what did he discover? Mugenyo on Wednesday. But I said now, Hamlenne, these numbers, Solen Kole, Dinga am Andalaburi, Dinga am Doiwar, Dinga am Soho, Dinga am Regu. mooy boo dee diw pour size bi gura. How? ñu clé ko comme nu baro clé highway bi mu jub mu tig ba nga xam ne soo dóoree rek aci afaat xam nga doy waar powder la magic powder danga ko def si juice nga daan <laughs> boobu nga dee rëkk ci gina gi thousand times boobu thousand dalasi la dee jar doy waar Andala Buri mooy bu mag bi everybody knows him yéen a ngi dégg Pape déglu leen wéy bi kanda la buri 2000 la moo jar ndox la danga ko mën a naan 10 times kon benn daanu bu nekk ñaara <laughs> te benn daanu bu nekk 3 days la 3 consecutive days saa yoo buggee dóor dangaa dóor soxu 5000 la moo jar boobu pour mag yi la ak ñu use garab bi nga xam ne xam nga seen yaram baaxatul ak ñoo xam ne den yaaga mballu xam jël saabu bi di mballu ba seen sidit yëpp bàyyi ne ko daf leen a rebuild dëgëral leen ngeen xam nga yokku ci kaw so lii mooy suma garab yi nga xam ne man kenn rek maay def lu pharmacie du def lu benn docteur du def mooy kaay ma jaay la nga satisfy satisfaction guarantee you know satisfy return it back your money will get back into your account Cheikh Ahmed Cisse when people are criticizing misjudging you just ignore them and work hard soo fa eggee rek they must upload or remain silent yéen su ma noonu seen naxar suma mbégte la soppe yi you know what it is